maaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV di ñu topp ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim téere borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission at tadabbur a ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole yi ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquranul karim Ali Imran TV lay amee ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ngeen ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar Traoré mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquranul karim suñu dund la moo ñu nett la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund tey te moo ñuy wax la nar a xew ëllëg inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam topp leen ñu ñu ànd settantal téere borom bi subhanahu wa taala ci Ali Imran TV ca kaw ca kanam bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala asrafil anbiyai wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV ñoo ngi leen di nuyu amaan nañ mbégte lool ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaayu alquran bi ñu tuddee atadabbur di ci jéem a settantal téere borom bi subhaanahu wa taala ni nga xam ne noonu lañu ko digalee ca lii dabbaru ayaati eh, afala yatadabbaruna alquran ak aaya ya nga xam ne yépp daf ñuy yóbbu ci ñu war a jéem a settantal waxi suñu borom subhaanahu wa taala borom asamaan ak suuf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu amaan nañ mbégte ci dellu seeg yéen niñ ci ànd ak yéen gaaw bu jot ci waxtu wi rawatina nag weer wi ñu nekk di weeru koor nga xamante ne mooy weeru alquran mooy weer wi nga xamante ne eh, dañ cee war a dund alquran dañ ko cee war a jàng dañ ko cee war a nafar dañ ko cee war a wétlikoo suñu waxtaan ak suñu émission li ko tax a jóg da ciy bokk gën ñoo xiirtal ci alxuraan bañ gën koo bëgg gën koo def muy suñu téere gën koo sàmmoonte ak moom ma amaan mbégte loolu nag ci waat ci ak euh, sama wëlëre sama xarit euh, imaam Aboubacar Traoré euh, borom alxuraan la di waxtaan ak ñun ci jotaay bi ci xereñe ak settantal yi nga xam ne moo ci am saa su nekk imaam maa ngi amaan mbégte ci feggoowaat ak yow di la nuyu di la bàyyi nga nuyoonteeg sa téléspectateurs yi macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maaleykum salaam wa rahmatullah. di la ziar bu baax a baax a baax di jërëjëf Traoré. bu baax. alhamdulilah dajebaat ci eh, jotaayu ak tadabbur. jërëjëf jotaay bu tedd bu am solo. Hmm. di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi topp di ñu seetaan. alhamdulilah Al Imran TV. alhamdulilah di jiital nuyoo bi eh, ki nga xam ne mooy eh, oustaz. Hmm. oustaz Alioune Sall. ndeysaan bu baax di ko jaajëfal. Hmm. ci taxawaayam ci diine hmm. ak ci alxuraan ak wallaay wallaay ndeysaan wallaay ah, yooyu itam di la jagleel rek alhamdulilah d'habitude dëgg la nga xam ne moom <laughs> yaa ngi ci tool bi jërëjëf si dañ la xamee ci bay sa waa masha allah ma ne la yaay safiru ahlil quran alhamdulilah alhamdulilah nekk loo xam ne lu ñuy gis la. dëgg la dëgg la ak yow dëgg la. na la yàlla yokk ay fan. amiin amiin yaa rabbal alamin amiin. ndax yow moom avocat allah incha allah allah. di kontaan lool tamit ci jotaay bi nga xam ñoo koy topp aussi ndax si encouragé hmm. di si seen mbégte di wane ne daal jotaay bi daal nekkul jotaay bu ndaw ci ñoom. dëgg la ay borom yi xam-xam ay euh, góor hmm. hmm. ak ay macha allah macha allah jërëjëf. jërëjëf imaam jërëjëf imaam Aboubacar Traoré ci nuyoo yu am solo yooyu atadabbur alquranul karim lañ koy def euh, àdduna lu ne dañ ko war di seetantal nit ki war nay xereñe lépp lu mu mën di doon waaye nag rawatina téere borom bi subhaanahu wa taala xam naa bala maa ubbi rek maa ngi koy wax ci ay bis gee ñu génn maak Oustaz Alioune Sall ci talaata ji ne ko nag euh, dañoo am xéewal gu ñu yàlla defal muy xéewalu euh, am doom ju mokkal alquran Euh, dama am doom ju jigéen joo xamante ne dafa bokk ci juróomi xale yi mokkal alquran ca daara Ali Imran euh, ñu war leen a teral euh, samedi ji mujj ci weeru koor gi di tolloog le 8 mai xam naa waxoon naa la ne la imaam yow moom borom alxuraan nga sa dooma mokkal alxuraan looy looy looy looy ubbee ci loolu manière générale ci xale yi nga xam ne ñu baree baree bari fi mu ne ñi ngi mokkal alxuraan mokkal goo xam ne at yu ndaw la am. macha loolu mbégte xéewal la ci réew mi aussi bu mm-hmm. ñu gënee bari ay ndaw ñoo xam ne dañuy wattu alquranul karim mm-hmm. te loolu tam dafay gën a dëggal waxu borom subhaanahu wa taala bi muy wax ci suratu alxijri mm-hmm. surat numéro 15 muy wax ni inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu la xaafidun wallahi wallahi man maa wàccee alquran te man maa koy sàmmal sama bopp te sàmm dafa bari ay façon bokk na ci gën a fës mooy ay doomu aadama ay nit ay ndaw ay xale yi ndawa ndaw yoo xam ne fereguñu il ji sax mun naa wax su ma nee fereguñu maanaam fetteguñ si neen deuxièmement ak ak guñu foo xam ne boo leen waxoon bismillah lan lay teg mënuñ la ko firil mënuñ la ko faram-fàcceel mm-hmm. seen xel ak gul foofu ñu mokkal téere yàlla ci mm-hmm. téere joo xamante ne bi yàlla nee na su ko wàcce woon ci montagne yi duñ ko antal mm-hmm. su ko wàcc joxoon asamaan du ko antal bu ko joxoon suuf du ko antal kon loolu xale di ko mokkal mhm. loolu yëpp dafa bokk ci li nga xam day wane ne borom bi subhaanahu wa moom mooy sàmmal boppam alxuraan ji mhm. beneen bi may wax moom mooy loolu chance bu rëy la aussi ci mhm. parents yi nga xam ne seeni doom dañoo mokkal alxuraan bu euh, yow mal xiyaam ñun ñëpp jàng nañ ci ay saar yu bari mais surtout suratu abasa mhm. yàlla di wax ne bés boo xam ku ne day daw moroomam allahu akbar bàyyi day daw doom wallaay doow doom wallaay bàyyi wallaay yaay daw wallaay wa ummihi wallaay ummihi wa abihi wa saahibatihi wa bani wallaay yëpp nga dem ci suratu almaarij yàlla wax ko fii mhm. yow nga demaat ci suratu al infitar yàlla ne yow ma laa tamliku nafsun mhm. nga xam ne dañuy dawante mais est-ce xam nga ne ci mokkal alquranul karim moom day wër baay ji hmm. day wër baayam hmm. wër ndeyam hmm. ngir lan ngir teral leen allahu akbar allahu akbar déet waaye imaam loolu neex na di waaw yeneen ci salaa salaam moom moo ko wax alayhi salaatu wasalaam day ñu wër ba pare indi leen ñu toog mu teral leen ñu toog ci ay chaise yoo xamante ne leeraay bi rek moo gën a foor leeraayu jant bi allahu akbar solal leen mbaxanay wurus mbaxane yoo xam ne benn per bu ci nekk rek moo gën a foor leeraayu jant bi allahu akbar waaw waaw lii moom lan la mu parce que seen doom bi nga xam ne yóbbu ngeen ko ci daara. mokkal mm-hmm. alquran. Mm-hmm. Mm-hmm. looloo tax ñu tere la allah ci lan ngeen ni foog ci ki nga xam ne nag moom moom mokkal téere ji. lan laa koy defal. allahu akbar bu dee ay waajuram lañ tere leen yi. yiw bu bari moom ci boppam nag. bu bari yiw bu ah. bari macha allah. ndax yiw ji ci nekk bari dëgg la dëgg la yóbbu sa doom mu mokkal alquran mu wattu alquran al karim loolu dëgg la dëgg la yooyu eh, maanaam eh, mokkal bi mokkal alquran noonu mooy jox nañ leen dictionnaire gën a riis si àddina mm-hmm. maanaam ay vocabulaire yoo xam ne da leen di permettre lépp lu ñu jàngate ci xam-xam mm-hmm. téere xam-xam yi mm-hmm. lu ko jox rek da koy avancer da ci beneen làkk a la dañ ko jox base yi vocabulaire de base yi jox ko lépp loo xam ne nag base euh, allah xale yi yi nga xam dañ mokkal alxuraan fu ñu dem rek ci daara yi ci école yi ci concours yi fu ñu dem rek même ci commerce bi. Mhm. la ñuy nekk. macha jërëjëf jërëjëf am na solo imaam waxtaan yu neex yi laay namm ci yow <laughs> ndax dañuy gën a xiirtal ci alxuraan bari na ku lay seetaan koo xam ne ngéejoo am doom joo xam ne fi mu ne dana bokk ci ñiy mokkal téereb borom bi subxanahu wa taala ndax loolu xéewal la saxaabatul kiraam am na ci ñu am tur yu mag doon ay kilifa te yàlla dogalul woon ñu mokkal alxuraan bi fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jóge xam nga ni ñu mokkal alxuraan mën nañ ko wàññi ci ay baaraam euh, tey jii nga wax aaya ju am solo mm. mooy inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizuun borom bi ne maa wàccee alxuraan waaye maa koy maa koy sàmm maa koy wattu ba du sànku wattu googu moo tax tey jii buñ ñëwoon kaamil ci àdduna bi yëpp dugal nañ ko ci géej gi bu subaa boo ñëwee xaw ma man réew waaye fii ci senegal am ñoo xam ne bu ñu wéeroo bindalaat la alxuraanul karim waaw bu am gone yoo xamante ne amaguñ fukki at euh, fi mu nekk nii dañuy taxaw sax di jiite naafi la di jàng alxuraan bàqara ba naafi loolu aw yiw la woo xamante ne dëgg-dëgg war nañ koo bàkkoo ndax ci ci yu mag yi la bokk euh, imam Aboubacar bi ñu yëkkati suñu jotaay ci ay bis gi ñu génn dañoo tàmbali woon benn saar di ko di ko tadabbur muy sóoratul alaq euh, defe naa jotoon na maa ñëw ci baatu iqra taxawoon ci wàllu jàng ak sance bi mu am man sax diggante booba ak léegi daanaka ci baat boobu rek laa nekk euh, mënaguma koo jeexal ndax li ci aju ci euh, settantal ak li ci aju ci ay xalaat léegi nag bismi rabbika door a ñëw taxawoon nañ ci turu sa borom subhaanahu wa taala war ñëw nag ci euh, bismi rabbika waaye li nga xam ne moo ci topp imaam foofu lañ war a doore suñu waxtaanu tey ginnaaw biñ nekkee ci moom xaddima bi waaye comme tadabbur la luñ ci am rek mu doy incha allah bismillah daf ñoo jox kaamilu alquranul karim mhm. boo xam ne laa yaqbalu ziyaada wallaay soxlawul ndolleen soxlawul abadan si dafa mat sëkk mhm. ba mhm. ah, te ki ñu ko jox eh, dafa ne ci xam-xamam la ko wàccee faalam annama unzila bi ilmillah allahu akbar allahu akbar mhm. xam leen ne alxuraan mhm. sama xam-xam ci laa ko wàccee yàlla nee na loolu sama mbiri bopp la nit siggi xool asamaan xoolaat ko xoolaat ko xoolaat ko ak ku mën a doon mhm. niveau bu mu a am dimension intellectuelle bu mu mën a am mm-hmm. incarné mm-hmm. muy xool ndax mën na cee gis benn défaut bu mm-hmm. ndaw muy architecture ñu képp koo xam ne yëngatu nga ci wàllu maanaam BTP moo xam wàllu es architecture wàllu tabax wàllu bu mën a doon ne da ngay xool erreur ci asamaan mais mënoo koo gis dëgg la waaw dëgg li ko waral mooy ki ki fa jaar la faatiru samawaat wala ard créateur fen taakoon boobu waaw allahu akbar wax ko ci tabaara mu ne farji il basara hal tara min futu humma farji il basara karratayni yanqalibu ilayka al basaru xaasi'a wa huwa xasiib est-ce que jalla jalla dama ko rafetal teg si. nit mhm. bu tabaxee ba pare après décoration lay. Mhm. Mhm. di décorer di rafetal di enjoliver di kii. yàlla ne wala qad zayyanna samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa hifzan <laughs> allahu akbar allahu akbar maanaam asamaan bi mu ko defaree ba noppi yëmul ci defaral ko waaye da koo décorer. daf koo rafetal biddiw yi nekk ci ab taar nga xam ne seetatiti waaw waaw almanzur mhm. Mhm. kitaabullah almanzur mhm. téere yàlla bi nga xam ne dañ koy xool sa bët ci jàngal yàlla nag ko noonu nag comme ci xam-xam la ko defee ñi koy teg bët te mënuñ cee génne benn erreur dëgg la mënuñ ci critiquer critiquer dara dëgg la noonu la ñuy joxee téere boo xam ne ci xam-xamam ci xereñam la ko wàcce kitaabun uhkimat ayatu ثم فصلت من لدن حكيم خبير الله الله من لدن حكيم حكيم خبير ku xereñ macha allah xam la muy def la kon téere bi ñu jox muy alquranu karim mu nekk téere boo xam bu mat sëkk la ci xam-xam la ko wàccee faalamu annama unzila bi ilmillah ndeysaan da ngeen xam ne ci xam-xamu yàlla la wàccee allahu akbar allahu akbar mu ne waat fassalnaahu ala ilm gis nga dama ko faram-fàcce ci xam-xam mm-hmm. Mm-hmm. moo tax suratul alaq bi dafa bokk ci saar yi nga xam ne mm-hmm. ci xam-xam borom bi subhaanahu wa taala la wàccee te mooy saar bi jiitu ci alquranul karim kon toujours muqaddima ci dara dafa am lu muy annoncé lu muy wane te muqaddima dafay mat sëkk la boo gisee saar wi suratul alaq nekk 19 aaya mhm. te wax toujours 19 dafa am lum ñuy junj mhm. mooy al bidaayatu wan nihaaya waaw mhm. doortelu xam-xam ak xam-xam fa mu jeexee dëgg la mooy suratul alaq lépp lu yàlla bind lu lu mu bëgg ñu doxal ko ci kaw suuf rek defañ na ko ci saar woowu allahu akbar lan la yàlla bëgg ñu xam ko gannaaw bi ñu ko xamee ñu jaam ko ñuy jàng bismi rabbika sa moo tax lépp lu ñuy jàng di ci gëstu rek ci maxluqaatullah subhanahu wa taala mm. gëstu jéem a comprendre li yàlla wax moo si jiitu dëgg la waaye ci biir li yàlla wax tamit xam ko tamit li ëpp solo ci xam ko mooy ñu xam ne moom mooy ki bind mm. moom rek moo existé mm. gannaaw loolu diggante bi li ci am yëpp dëgg la mu mujjee moom mooy wasjud waqtarib wasjud waqtarib kon loolu la suñu borom subhanahu wa taala bëgg dëgg la ñu xam ko ñu jàmm dëgg la ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun allahu akbar mission bee ngi kon yàlla nañu nañu jàng nañu jàng ci turam moom maanaam xam-xam bépp bu ñuy jàng. Mhm. na na maanaam na borom bi subxanahu wa taala dong tax. Mhm. objectif bi finalité bi na doon borom bi subxanahu wa taala. Mhm. moo tax mu ne wa an laa ilaha illa hu. ñi gëstu yëpp. ñi ngi tudd science di wax nangam mbindaafoon yeeg asamaan suuf doomu aadama. mais loolu yëpp daf ñuy delloo ci kenn. allahu akbar jalla jalla jalaaluhu kon bismi rabbika alladi xalaq. la mu bind nag bari na. waaye nag mu ne. xalaqal insaana min alaq maanaam bi mu waxee euh, sa turu borom mi nga xam ne moo bind. Euh, lim bind kenn xamul nu mu kenn xamul nu mu toll yàlla rek ko xam. waaye mu daal di am kenn kum sepp ci mbindeef fii daal ne xalaxal insaana mhm. léegi foofu waxut xalaxa tayr wala xalaxa nangam wala xalaxa nangam waaye al insaan la jël jëlut leneen lu dul nit mu ne ma bind nit min alaq euh, li nga li nga li nga laytaayee ba agsi foofu lépp day wane ne Eh, ku bëgg ku bëgg a xalaat mm-hmm. wala mu bëgg a settantal wala mu bëgg a dundal xolam ak xelam mm-hmm. yi yi nga joxoñ ay joxoñ la yoo xam ne bu toogee ne tekk di ci xalaat daf koy dimbali bu baax a baax a baax a baax ci ruwam dund parce que xalaat suñ borom day dundal ruu xalaat yim def ci àdduna day dundal ruu moo tax mu ne euh, ndax du ngeen xalaat awalam yatafakkaru waaw xalaat leen xanaa du ngeen xalaat ci ni ma ci ni ma binde asamaan ni ma binde suuf mm-hmm. daal ne danaa leen woon li ngeen war a xalaate danaa leen ko woon fil afaq mm-hmm. danaa leen ko woon ci seen bopp Euh, danaa leen ko woon ci lépp lu ngeen xool afalaa yansuruuna ilal ibli e, ilal samaayi e, waaw ilal jibaali ilal ardi yooyu yëpp suñ borom da koy joxoñ mu nekk ay uti yoo xam ne nit ki daf koy soxla ngir mën a dund boromam subhaanahu wa taala ba xam cafkaam léegi nag bu ñu bu ñu jàppee ci loxob lool di ko wommat ba dugg ci biir suratul alaq da ngay ñëw léegi ci bismi rabbika allasi xalaq nga xalaat suñ borom dafa wax ne sa turu borom te foofu waxut bismillah Euh, waxut bismi leneen waaye ah, foofu arabbu la jëfandikoo arabbu mm-hmm. te rabbu mooy euh, euh, maanaam du tekki ak moomeel kese waaye moomeeluk yar lay tekki mm-hmm. ndax baatu tarbiya da ciy dugg rububiya gi da ciy dugg ba jeex tàkk ci baatu rabb bi mm-hmm. léegi nag arabbu waaye àll si xalaq mu bi muy présenté boppam waxut maa moom waxut maa sañ waxut maa nangam waaye maa keree la wax ah. imaam foofu bari na lu ñu fi mën a génnee lu ñu fi mën a génnee nga sànq wax nga benn aaya bu am solo mhm. ci suratu Fussilat mhm. suñu borom di wax ni sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim allahu akbar hatta yatabayyana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid allahu akbar ya allah won samay si samay kéemtaan samay kawte fil afaqi mhm. ci univers bi ci nature bi ci li leen wër wa fii anfusihim ak seen jëmmi bopp allahu akbar xatta yatabayyana lahum annahu alxaq ba mu leer leen ni yàlla rek mooy dëgg allahu ba mu leer leen ni alquran rek mooy dëgg ba mu leer leen ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam rek mooy dëgg ba mu leer leen ni rek mooy dëgg kon suñu borom subhaanahu wa taala jalla jalaaluhu ba mu euh, tuddee wàllu mbind mhm. ne bu leen yam leen fii rek xool leen seen jëmmi bopp mhm. wa fi anfusikum mhm. afala tubsirun allahu akbar dañ waaw moo tax allasi xalaq xalaqal insaana léegi al insaan boo taxawee ci di ko seetantal mooy man mooy yow léegi na nit ki na nit ki jàngat boppam yàlla mhm. ne xalaqal insaana min alaq min a créé bind doomu aadama si nga ñu fa muy wékkoog nam fa bindoo nam fa demee ak yooyu yëpp waxoon nañ ci. léegi doomu aadama toog nag di xalaat ne waa man maay kan ne ne yow yaa ci nga xam ne min maa in mahin. Hmm. Hmm. fa ja'alnaahu fi qaraarin makiin ilaa qadarin ma'luum hmm. xool xoolal fi mu fa mu jaar mm-hmm. mu jaar ak doomu mi ngi ko te ni ko sose. na mu ko sose nit mooy kan si juróom-ñaari étape. allahu akbar juróom-ñaari étape mu junj ko. ci mm-hmm. suratul mu'minuun. waaw mu ne. suratul mu'minuun mooy surat numéro. 23 mm-hmm. 23. ci alquran mi ngi wàcc ci. Mm, ci ci ci 23 ans. Mm, effectivement. am na rapport bu am ci wàccum alquran. ba pare saa du tudd al mu'minuun. tudd al mu'minuun les waaw <laughs> suñ borom subhanahu wa taala muy wax ni walaqad xalaqna al insana min sulalatin min tin thumma jacalnaahu nutfatan fi qararin makin thumma xalaqna nutfata alaqa hmm. thumma xalaqna alaqata mudra hmm. thumma xalaqna almudrata idama فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر xoolal waxin woowu. waaw ثم أنشأناه خلقا آخر. الله أكبر تبارك الله رب العالمين. bu ko neexee bàkku bu ko neexee bàkku. رب العالمين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون تخلقون allah شاء الله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون muy waaw bu dee noonu nga koy jàngee dangay ngay da ngay jàng <laughs> masque yi bu dee yeneen yi ci def la foofu masque yi doo ci taxaw am na solo ci njàngin waaye am na solo ci njàng bi nga joxoñ kon doomu aadama na xalaat ak sosoom moom waaye mu xool moom ci boppam mu def tadabbur ci jëmmam ci juróom-ñaari aay ci mhm. juróom-ñaari étape waaw juróom-ñaari étape yooyu borom xam-xam yi gëstu nañu si mhm. ba gis ne juróom-ñaari étape ci la doomu aadama jaar mhm. fekk alxuraan jiit woon junjoon nañ keroog docteur Kiss moo bi nga dëgg la jaar na ci loolu dëgg la euh, nga dem ci euh, juróom-ñaari yooyu juróom-ñaari étape yooyu mooy suñu muqaddima bi nga xam ne yàlla mi ñu koy jànguloo dëgg la dëgg la mooy suratul faatiha dix-sept fois bu fekkee faratay rek nga joxe mooy sab'a ayat walaqad aataynaaka sab'an min al-mathaani wa qur'aan al-aziim est-ce que est-ce que donc yooyu maanaam doomu aadama dafa am rapport bindum doomu aadama dafa am ak rapport bu extraordinaire mm-hmm. ak chiffre boobu maanaam lim mm-hmm. boobu la la moo tax lépp li def rek nu mu néew la dëgg la waaw moo tax juróom-ñaar sax daa bari lu muy ñëw. boo demee ca aj ga booy wër kaaba gi juróom-ñaari yoon. booy daw safa mar marwa juróom-ñaari yoon. Mm-hmm. booy sànni jamra juróom-ñaari xeer maanaam eh, juróom-ñaar ànd naa nit ci lu baree bari. waaw waaw bis juróom-ñaar la <laughs> moo am juróom-ñaar bari na wàcc ci juróom-ñaari xaraf mhm. mhm. waaw mooy numéro sept ba nga ma waxoon xam nga sept moom mooy beneen affaire waaw sept moom leneen la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la nga ñëw ci fatiha mi umul kitab mu nekk juróom-ñaari aaya mhm. nekk juróom-ñaari lettre waaw nga xool tamit K9 Euh, lay tombeel turu allahu mhm. fekkee alif bi ñaata yoon la ñëw ci waaw waaw lam mhm. bi 22 kaa euh, bi juróom benn yoon boo leen boole mu jox la 49 7 mhm. fois 7 sabaan min al masaani wal quraan wal quraan al azim loolu dafay répété wu macha allah macha allah xalaqal insaana min alaq boobu suñ borom subhaanahu wa taala mu yóbbuwaat ñu ci beneen saar boo mooy suratu al ixlaas yàlla ne qul huwa allahu ahad allahu samad mhm. lam yalid wa lam yuulad wa mhm. lam yakul lahu kufuwan ahad macha allah kon suñ borom saxam mu ne lam yalid jurul kenn te kenn juru ko mhm. yalid boobu diggante bi waaw ba bi ngay foofu juróom ñaari baat la euh, ci saar bi ci kaw la tegu ba ci lam yalid ci la am masque gu tegu suuf muy muy mask ak laam googu boobu doo nga wàcc ci suuf waaw ndax sii la moo tax macha allah macha allah imaam waxtaan wi xam-xame na waa daaneelal foofu bu ko defee ñu daal di ñu daal di ñu daal di teggi ndax ñu. tuwarka la waaw xalaqal insaana mhm. ak xuliqal insaan mhm. moom tam juróom-ñaari mhm. boo xoolee boo ko xoolee bakara ba naas. macha allah dëgg la dëgg la. muy suñu borom saaral li mm-hmm. allah juróom dëgg la tubarkaal am na solo lool liñ bëgg a joxoñ foofu rek mooy xalaqal insaan tey tey baat boobu la ñuy seetantal waaye ñun buñ koy seetantal xam nga seetantal mooy nga toog di xalaat mm-hmm. waaye nga jëli ay ay yëf comparer ko ak moom nga xool eh, ci mbindin mi wax nga juróom-ñaari étape yi fi doomu aadama jaar ba sosu yow sa jëmm ji même boo ku nattut ci alxuraan ak sama bos ñuy jàngat suñu sosu mm-hmm. xam nga ne ay at ci ginnaaw Euh, am na noo xam ne meloo ni woon yaa ngi xool yaa ngi tàmbali am sikkim léeg-léeg nga am bi jaaw ñu naan la yaa ngi jëm mag waaye demoon nga doon fi liir doo mën a jóg nit day àgg ci foo xam ne dinaan bërët am kattan di daw am foo xam ne day buy jóg day wonku am foo xam ne koy may loxo dem ba mu yàgg dootu mën a jóg nga xam ne kon day dellu ca lam nekkoon day delluwaat ci ak tële tële la sosoo day dellu ci ak tële loolu ay xalaat yu baree bari manees na ko cee yokk ñun li ñu doon def mooy gën a wane ne alxuraanul karim téere la boo xam ne dañ ciy xalaat waaye dañ ciy defaroo ndax day yëkkati nit maanaam li ñu wax développement personnel alxuraan dara jiituwu ko ci ci ci fànnu xel waaye ci fànnu nit ki gëm boromam ci fànnu nit ki xam boppam dara jiituwu ci loolu imaam xam naa ne mbokk yi du ñu doyal ci waxtaanu atadabbur dañuy bëgg ñu di ko wéyal mu yaatu lool maa ngi lay jot li nuyoo mbokk yu baree bari ñoo xam ne dañuy jaar ci man di eh, di la jox ay yóbbante ay barkeelu ak ay nuyoo eh, suñ mbokk yële ca France eh, madame Koulibaly soxna Touré ca la bokk soo soxna Aminta Diagne ma la ci Amérique ca la bokk naka noonu Cheikh Fadel Ka ak ñu bari ñoo xamante ne mënuma leen a lim waaye jotaay bii seen jotaay la dama ciy jot ay écho yu bari yoo xam ne nit ñi day tegtal ne bëgg nañ alxuraan waaye bëgg nañ ku leen ci jox ay orientation yan kàddu ngay jeexale. macha allah di am mbégte vraiment euh, ni mm-hmm. li tax mooy saa su ne xalaat say démarche. dem ak mm-hmm. dikk coono nga toog nga xam ni ci alxuraan nga koy def. Hmm. loolu sant yàlla la effectivement loolu sant yàlla di la jaajëfal aussi. jërëjëf ñu may occasion boobu. jërëjëf jërëjëf teral. Eh, amiin yàlla na alxuraan teral. amiin eh, sa doom bi nga xam ne tam moom moo. amiin alxuraan wallaay wallaay. Eh, kontaan nañ ci. jërëjëf daanaka tey man maa am. dégg wallaay wallaay ñu ko annoncé. wallaay boobu lii. xam naa loolu xam naa xam naa ko bu baax a baax. macha allah jërëjëf yàlla moom it ci magu alquran amin yaa rabbal alamin amin bokk ci ñi nga xam ne moom fu ñu taxaw rek amin alquran yëkkatiku dëgg la taxaw rek amin waaye ki nga mi nga xam ne ci loxoom la mokkale mhm. yàlla yàggal ko fi amin yaa rabbal alamin amin yaatal daara ji amin génne ay junni sur le plan économique amin mhm. sur le plan boo mun a xalaat rek ndeysaan nga xam foo leen yóbbu rek ñu daal di doxal. incha allah nekk nit ñoo xam ne fi dunya xasana wa fil aaxirati xasana loolu la ñuy. macha allah amin am ñaari laaf yooyu yëpp. Euh, ñu koy naawee di ko demee di ko doxee. Hmm. macha ko. yàlla boole. tam ñoo ñuy topp aussi. jërëjëf nuyu ñu nit. jërëjëf leen jërëjëf jërëjëf leen di leen ak bëccëg. ndeysaan jotaayu ak tadabbur bi moom hmm. ay buntu la yu dañ koy di ko junj. Hmm. ñi ñuy topp kenn ku ne. incha allah incha allah jombul sax danañ ko gën a yaatal ci waxtu yu gën a yaatu. Euh, xëy na bu ñu demee ba wari Pape Doudou dana gën a yokku temps bi euh, ñu def ko émission boo xamante ne xëy na du doonati ay extrait yu gàtt waaye lu mu gàtt gàtt dana mat ñeent fukki minutes ak juróom euh, yoo xamante ne danañ gën a mën a jox euh, waxtaan wi yil la gën a taxaw ci baat yi gën koo firi gën koo firim fàcce gën a waxtaane alquranul karim waaye ndoorteel émission ak wàllum internet euh, moo demee noonu te itam seen youtube itam léeg-léeg itam maanaam waxtaan yi day am ay limites yoo xam ne moom la war a am ñoo ngi jégg lu baax baax ñi nga xam ne ñoo ñuy topp di leen wax ne lu jëw a jeexul fa imaam jërëjëf kon nuyul ma soxna yi eh, di la wax eh, nga woor ci jàmm xam naa yow yaa ngi ndogoo ko jiite ji naa fi la ah tubaarkaala dégg naa ustaas yeeg fonk ndogu. macha allah sant ngërëm ñeel na la jërëjëf jërëjëf imaam Aboubacrine Traoré ku borom alquran yal na yàlla teral la yow itam ci barke alquran teral mboolem ñi nga xam ne ñooy topp atadabour eh, defal ko waa Ali Imran TV rawatina suñu caméraman bu njoogaani bi nga xamante ne mooy Pape Doudou eh, ñoo ngi koy jaajëfal baax jaajëfal soxna Fat Diallo jaajëfal Oustaz Alioune Sall mi kilifa kër gi ak mboolem personnelu Ali Imran TV ak eh, sympathisants yi ak ñi nga xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi mbokk yi cant ngërëm ñeel na leen ba ay bis gii di ñëw inchaa allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV di topp ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim téereb borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission at tadabbur a ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole yi ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquraanul karim Ali Imran TV lay amee ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ngeen ciy àndal ànd ak imaam mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquraanul karim suñu dund la moo ñu netti la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund tey te moo ñuy wax la xew a xew ëllëg inna haadha alquran yahdi lillati hiya aqwam topp leen ñu ñu ànd settantal téere borom bi subhanahu ci Ali Imran TV ca kaw ca kanam